bokk na ci na mu dooree ba reprendre at grève de la faim bi waaye tamit euh, ngañaay li nga xam ne am na ko Ziguinchor te juge Sabassi Faye daal di euh, kase génne bi nga xam ne génne woon nañ ko ci liste électorale lu yees li nga xamante ne moo am ni kii si suba di Ayib Daffé mandataire bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko yebaloon ngir mu jëli ji fiche fële sa direction générale des élections mu dem gisuleen ñu daal di koy tëjal ay buntam loole lépp dinañ ko waxtaanee si biir euh, jotaay bi waaye comme niñ koy baaxul def rek Cheikh la ay dooree waxtaan bi ma fàttali ne Gëdman Xuman dina ñëw dab ci yoon bi dafa nekkoon ci ay yitte rek mais balaa ñu yëkkati jotaay bi incha allah mhm. euh, dina ñëw ànd ci ak ñun comme ni mu ko baaxoo di defee alxames bu jot Cheikh Ousmane euh, Ayib Daffé dem na tey direction générale des élections mhm. euh, ñu gantal ko bon du ma ne gàntal sax dañ ko bañal dugg bi ne ko tey du ñu recevoir kenn loolee gannaaw ndam li ñu am fële ci Ziguinchor mhm. juge ba ne nañ ko delloowaat ci liste yi ban commentaire nga ciy defal bu dëkk ci réew boo xam ne dañuy wax ni état de droit la mu am décision de justice bu tukkee ci benn juge mu kase ab décision bu ñu jëloon mooy radiation bi ñu rajee woon kii di président Sonko ci liste électorale yi mu kase ko ne nañ ko réintégré waat ci liste yi waaye non seulement nañu jox ay fiche de parrainage mandataire yi mu yebal fële ci direction générale des élections. Mm-hmm. ginnaaw bi tribunal boo xam ne ab juge moo ko présider joxe décision yi exécuter rek moo ci toppoon une décision de justice dans un état de droit dañ koy exécuter absolument rawatina nag mu concerne matière administrative nga xam ne amul suspensif mhm. ci bu fekkee da nga interjeter appel te appel ba agent judiciaire de l'État abandonné na procédure bi mu doon mhm. dugal mhm. su fekkee ne loolu am na nit ki joxuñ ko àqam loolu day poser problème mm-hmm. li muy poser problème mooy d'abord dafay tax man citoyen lamda bi ma laajte man ci lan laa nekk ndax ci état de droit laa nekk mm-hmm. ndax man ci république laa nekk waaye ban façon justice wala ban façon administration la am bu fekkee ne dañoo am administration boo xam ne une mm-hmm. décision de justice dafay génn ci tribunal ñu notifier nit ànd ak huissier ñëw nga ne doo leen recevoir. Mhm. teg ci li nga ko layee mooy tey direction générale des élections du recevoir kenn. Mhm. mooy am na benn volonté politique bu nekk ci ginnaaw décision boobu. absolument volonté politique boobu ca ca njëlbeenu dossier Sweet Beauté nga xam ne mooy premier dossier judiciaire u président Sonko lam génnoon wax mooy lii du dara lu dul benn kabal bu ñu yëkkati. ngir xañ ma ma doon candidat ngir xaj ma mën a jot ci réew ba mu ko waxee indi woon na polémique ñu bëri na Ousmane Sonko dafa jël dossier judiciaire politique yi ne dem wuy ji justice c'est un justiciable lu dëgg mm-hmm. loolu amoon débat amoon polémique amoon xëccoo mu dem wuy ji tey Ousmane Sonko le temps lui a donné raison mm-hmm. le temps est meilleur juge wane na ni dëggantaan la mu doon wax ndekete mooy dëgg lim am en face de justice lim am en face volonté politique la ngir xañ ko mu bokk ci candidat wu élection 2024 li koy dëggalaat tey mooy Ousmane Sonko jamono jële bi mu waxee ni du du dem wuy ji tribunal juróom na tolle ci dëkk bi bari na observateur yu génnoon di dénoncer tey bi ko justice joxee dëgg ñu war ko jox àqam ñu xañ ko déggoo kenn doon Mhm. moo tax damay interpeller directement Babacar Ba bu forum du social anamu xanaa newul ci dëkk bi mhm, bonne question <laughs> Babacar Ba moo génnoon wax ne amul mhm. benn citoyen bu nekk au-dessus de la loi képp ku yoon soxla da ngay wuy ji tey ab doomi aadama ab citoyen sénégalais yoon jox ko dëgg ay nit taxaw na dëgg boobu duñ ko exercer ñu seen silence silence complice li dafay tax nit ñi di poser wu question ci seen équidistance ci ndax dëgg-dëgg dañoo tëddee njaaxaanaay ci ndax dëgg dëgg dëgg askan bi lañ fi nekkal. Mhm. ana Babacar Ba. Mhm. ana waa Forum Justiciable. ana yeneen observateur yu doon génn. Babacar Ba moom moo nekk présidence wala du moom. moo nekk OFNAC. moo nekk OFNAC nag nekk OFNAC léegi. ana ana ana ana ñun ñëpp doon condamné comportement Ousmane Sonko vis vis de la justice ana ñu tey nañ génn wax buñ noppi day yomb trop. Mhm. li xew du droit. li xew kenn xamul lan la amul maanaam amul. mais mais li gën a graaw Cheikh Ousmane mooy nit ñi ba tey joxuñu benn explication. amul benn explication ndax ndax ndax lu xew ndax dañuy waaj a tëxu. non ñoom nu ñuy fatu jour ouvrable. xam nga tey bu doon loolu moom a jaaxal parce que xam nga tey. du ñu recevoir xam nga tey mo fa bu doon vendredi sax nga ne vendredi administration day teelawaat mais tey la. te vendredi te sax bu doon vendredi heure bi mu dem heure liggéey la. Mhm. mais c'est-à-dire foog ñu respect gis nga réew mi on a un sérieux problème. suñu premier problème xamal la problème de dirigeant des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. surtout sincèrement premier chantier wu le futur président de la république. loolu mooy l' administration sénégalaise et les institutions xool yan profil lañ fay teg. Mhm. parce que man sincèrement j'ai un sérieux problème avec yenn profil yi ñu dénk yenn responsabilité mooy li may wax rek boo jëlee nit koo xam ni première préoccupation mooy volonté de plaire son patron ci ay acte de zèle rek lay dëkk lii amul lu ko mun a expliquer dafa ñaawaan amul explication amul explication et puis c'est répugnant mhm. et yow nan ngay génnee wax ni di nga def kut ku kut ba lee la fi daje dese les décisions de justice nga fexe ba ñu appliquer ko mhm. c'est le président de la république qui l'avait dit mais les décisions de justice na fexe ni mu fexee woon ba condamnation Ousmane Sonko ñu appliqué ko noonu la ñu waree fexe ba réintégration ci fi ci fichier électoral bi ak ñu jox ko liste de parrainage am même yitte bi lañ ci war a def. waaw maanaam justice amul xaaj ak seen xàmmeewul marron beige xàmmeewul vert blanc administration dëkkul mer siège du Mermoz couleur am du marron beige appartenance du APR. ñun nag lii mooy suñu problème. Ah. dañoo jaawale l'APR mhm. ak l'État du Sénégal. absolument mais administration est-ce que du moom si gën a jël coup présentement. ah mais administration leen ñoo xam ne duñu ay politiciens. waaw mais dañ leen ko jàppee mais ñoom li ñu ne leneen la fi ñu leen xaar ak fi ñu wàjji c'est malheureux quoi sincèrement man dama fogoon ni fi ñu toll nii occasion unique la ci justice ci administration ci yenn institutions yi de se réconcilier avec le peuple sénégalais. fexe ba tâche bi amoon ci ñoom ci seen doxalin ci douze ans yi. Hmm. mami ñu mun ko raxas mu dañ. mais malheureusement nekkuñ ci logique boobu. Mhm. les sénégalais nag observe foofu laay daanelee. il sont pas amnésiques taxuñu gumbawuñ ñu ngi observer ñu ngi xool ñu ngi jàngat et ñu ngi retenir na. Mhm. ok am na solo Mass. Mhm. Euh, wax ji lenn la tey mooy ayib muñ ko lànkal yow ban lecture nga ci am ba nga ko gisee mbir mi xam naa amati la metti waaw Moustapha. Euh, gàcce déception. waaw parce que aussi Sénégal bi ñu bokk hmm, moo sut lépp mm-hmm. euh, waxuma sax ñun ñu ne ci biir Sénégal mais léegi da ngay xool ñu ne bitim réew nit ñuy xoolee nit ñu xoolee Sénégal mm-hmm. ñun ñu jógee ci état bu démocratie weesu nañ ko parce que li fi am nii c'est du banditisme xam nga euh, fi ñu toll nii ku nekk dafa war a jël ses responsabilité wax dëgg mm-hmm. parce aussi am na fu ñu toll ku toog di seetaan parce que équidistant mooy lan te day njaaxaanay mooy lan mooy lan souvent ñun jour non mais ñun journaliste ak ñeneen dañu am problème parce que xamuñu problème bi